tey li xew Sénégal yëpp gisandoo nañ ko di naqarlu ndax ñëpp xam nañ ne administration Sénégal bu ñu respecté woon la mais jamono ji Macky Sall bi mu fi toogee léegi gis nañ ne fexe na ba administration bépp nekk ay politiciens ndax démb lañ ñu woo commissaire bu Mbàkke woo ma man ak Ahmadou Lo mi bi ñu xëyee dem fa bi ñu fa demee dañ ko wuy ji ngi respecté institution yi bi ñu egsee li ñu njëkk a mooy préfet moo ko jox ndigal pour mu notifier ñu war nañu meeting bi dañ ko interdit te jàpp naa ne ci histoire Sénégal c'est la première fois nga gis commissaire policier di interdire meeting wala mu koy autorisé jàpp naa loolu kenn mosu ko kenn mosu ko bi loolu amee nag ñun dans ma part personnel génn nañ kalaaki buntu bi xamal ne ko yow ab nga Antoine Diome moo la manipuler jox la ndigal pour nga interdire manifestation mais loolu ñun duñ ci d' accord biñ génnee li njëkk a def mooy dem préfecture jubali fa pour gis préfet ndax jàpp nañ loolu moom la waroon def moo ko waroon def te defu ko biñ eggee fekkuñ fa préfet fekkuñ fa adjoint kon mbir mi ñoom dañ ko planifié pare daw génn département Mbacké ñu leen xamal nag bu dee ñoom ay politiciens lañ dañ leen jàpp bis ni ko tey adversaire politique te xam ne préfet bu Mbàkke bii waxul dëgg tey lim def tegu ko ci droit tegu ko ci yoon ci ay fen ak étape la ko teg ñu xam ne nag ñun dañ def faire face ak ñoom ndax président Ousmane Sonko ab citoyen sénégalais la yor parti politique yor may ko mu def meeting fu mu ko soobee ci Sénégal gis nañ ne Macky Sall fu mu bëgg a def meeting dina ko fa def te kenn du ko indi ay jafe-jafe pourquoi moom mu ne opposant bi du def meeting fenn ci Sénégal loolu amu ci droit kon jàpp na ne ñun département Mbacké liñ waajoon woo soppi wuñ ci virgule gis nañ nag li ngeen gis ndax meeting pour nga interdit ko am nga 48 heures mais gis nañ bi ñu ko interdit 24 heures am na te indi nañ disposition yëpp pour préparer suñu meeting carré war a am na ci ñoo xam ne Gambie am ñoo xam ne Sokone am ñoo xam kaw Pastef mais du jàll fii mooy waxee nii Ousmane Sonko mu nga Padoa di visite ab maire boo xamante moo ko fal policiers ak gendarmerie yi ña ngay ay ay garnaat lacrymogène ci kawam kon mi ngi mel mi deux fois deux mesures moo fi am ñu ne xamee ne Macky Sall réew mi dañ ko ko jox ci démocratie bu doon réewum buur la du fi mas a nekk buur ndax ay nday mag bàyyi mosuñoo falu ci réew mi kon démocratie moo tax mu nekk président de la république démocratie boobu dina ko respecté wa ilaa ñun def ñu ay néew lii mu ñu teg duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg président Ousmane Sonko Sénégal yëpp ñu ngi ko xaar ci département Mbacké suba bu ñëwut ñun département Mbacké baaluñ ko ko nañ ñëw ñu teeru ko bu fekkente ni Macky Sall moom dëkk bi dina leer jàpp naa ne Touba nañ mas a libéré Sénégal suba Touba dinañ libéré Sénégal ndax Ousmane Sonko dina fi ñëw képp koo xam ne jàmmaarloo na ñun dinañ ko def ab néew wala mu def ñu ab néew Macky Sall nag bis ni ko tey Macky waa AP waa APR yi nag bis ni ko tey dinañ xamel nag waa du ma waa APR sax mais mercenaire politique yi xam ne ñoo nekk ci département bi di jéem a divier waa Pastef dinañ xam ne ñun lañ ko jàmmaar lool mhm. li nga xam ne dinañ ko muñ di xool ay taalibe ak warma à partir de maintenant dakk na mhm. dakk mhm. na heure bi fi ñëwatee luñ ne ñu koy privé ci département Macky wax woon am nañu kër fii ci département bi am nañu fa ay logement te xam nañ lépp heure bu ñu may Ousmane Sonko jàmm nu dina may jàmm beneen bi ci toppatee waa Dakar lay interpellé bu fekkente ni mënuñoo mu sécurité Ousmane Sonko en charge nañ ñu ko wax ñun waa département Mbacké duñ nangu président Ousmane Sonko ñu convoqué ko ko ñun waa Touba dinañ bu ñëwee dinañ ko teeru lépp lu mu fi am dina fi am meeting bi annulé wuñ ko ñoom nag ñoom am seen force de l'ordre bu leen neexee ñu rassembler yëpp jël ko mais Ousmane Sonko bi dinañ ko teeru tatagal ko lépp luñ ci fekk ñun dinañ ko assumer comme suñu responsabilité. mën nañ xalaat beneen suba dina ñëw dinañ ko teeru tatagal ko Antoine Diome ñu xamal ko ne ko Touba amu fi tous na bàyyi manipulation yi muy def fen ak tappaleem yi def commissaire police Mbacke ku ko gis xam ne tey bi muy liir li muy li muy li muy liir PV bi ko à l'aise mun na si gis xool ñun jàkkaarool ndax ab politicien la ab tappalekat la du waxkatu dëgg kon nag ñun jël nañ suñuy responsabilité bu dee ñoom ñoo moom bi dina leer ndax ñun suñuy maam suñuy maamaat bërkaat dem kenn musu leen tot duñ bàyyi ba heure bi Macky Sall jóge ci àll ba dañu not loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu du motif wu dara meeting def benn signature lañu daan am meeting bi mu mujj def coalition Yewwi rek moo am signature bi kon buñ taxawee ba heure bi ñu naan dafa war am trois signature loolu du dëgg meeting yi ñu mas def yëpp benn signature day am c' est la première fois ñu def meeting deux signature kon loolu du lay wujjub te gis nañ 24 heures avant waa APR yi bi du am kon day mel ñoom waa APR yi ak waa Antoine Diome ci la sukkandiku pour fa bu seen meeting bi kon nag ñun jàpp nañ ne Macky Sall bu fekkee ne dafa bëgg nekk dafa bëgg rey ay nit pour toogaat ci réew mi dina ko am te à partir man bokk sama man sama li man la engagé wallaahi la xasim bu bëggee not président Ousmane Sonko bu bëggee not Ousmane Sonko bëgg ko dugal ci kaso wala mu ne moom réew mi tey moom réew mi ëllëg suba dina ñëw ci jumaay Tuubaa ji ji julli ji dem ci université ba def karawaan ñu ànd ak moom bu fekkee ne ñoom ñoom dëkk bi dina leer incha rabbi jërë ngeen